waaw père maa ngi fay. di la laaj fu préparation bi toll. waaw noonu la maa ngi sant yàlla jul si yonent bi ak suñu yaay ñaari waajur. yaa du nuyu ñëpp ñu seetaan dëkk bi ma ñëw rek balaa may commencé damay nuyu sama ay maam ak sama papa yi fi nekk. ku ñu mel ne suñu maam suñu lépp Mouhamed Ndiaye Robert champion mag maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam. di nuyu sama papa Manga 2 di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu sama papa Amoura Sarr. di ko nuyu di nuyu njabootam di nuyu Yaxya Joob Yékini la grand champion di ko nuyu di nuyu njabootam di sant yàlla bu baax a baax di wax ne gis nga dañoo ñëw parce que Pape Thialis moo woo fii sama contrat maag Tapha Tine ñu ñëw bëgg a def prestation waaw gis nu mu demee mais lamb ji niveau lamb ji moo tax mu demee ni di sant yàlla bu baax a baax a baax waaw. Euh, préparation bi lay laaj saison bi amoon na li ci dal gis nañ ne ubbi na. foo toll ci préparation bi ak combat bi lu mu la jaral. waaw man nag yàlla daf maa dimbali dama bokk ci mbër yi nga xamante ni. combat ou pas combat dañu nekk ci entraînement. waaw parce que ñun dañ jàpp ne. dañoo nekk ay mbër yoo xamante ay mbër yu ndaw lañu. kon mbër mu ndaw bu bëggee am fu mu teg bëtam. entraînement dañ ko war a fekk. promoteur bu jékki-jékkoon sax daan ne non combat bi dafa yàgg léegi dañ ko bëgg a bëri mois prochain ñun dañuy daal pare. parce que ñu ngi ci ñu ngi ci chaque jour ñu ngi ñu la. Mm. dafa atteindre ñooñu loo leen waaw lu diis li diis laa yenu ba toll ni ma toll maanaam lu diis sama màgg loo ba toll fi ba yegg si Tafatine lu diis rek laa doon lekk ba suur ba toll ni ma toll boo xoolee fi ma jaar nga xam ne amul kenn ku ma tollal poids amul kenn ku ma tollal gabari amul kenn ku ma tollal âge loolu la ma yàlla bindee waaye bi damaa jàngee bëri ci ay poids ay ponkal rek laa jàngee bëri moo tax ma gën a nekk à l'aise bëri ponkal ko ma bëri sama morom wala ma bëri ku mbokk gi dafa yaatu ñëpp ñoo bokk bawal mais lii làmb la ba pare lamb suñu métier la dañ cee toll man ma nekk xale am fu ma teg sama bët te daaw nañ ni tafaatin ak keneen ak keneen du ma ko xaj dama sama bakkan laa ci teg kon li ma waxoon rek dañ toll ci bunt bi benn caabee ci nekk te man moom ku ma tee dugg sama bakkan laa lay jaay waaw. moom nee na fekk si na Pikine da koy neex ngeen la demee Pikine moom c'est moi la waaw Pikine moom c'est moi mais nag dara loolu yëpp du tee lamb ji dañ koy teg ci yoon dañ koy teg ci yoon dañuy entraîné ne fonk ko lool lamb bi ñu jugee lu bari lañ jàngal ci lamb donc ay xale lañu waaj nañ bu baax a baax a baax dañ koy teg ci yoon maa ngi nuyu ñëpp nag di nuyu ñu ma àndal fii yëpp di nuyu sama mag Lamine Seck di nuyu Thierno di nuyu sama gars yi ma àndal yëpp ñi nga xam sama ay xarit lañu ak Abdou mi nga xam dafa jógee France ñëw ak sama waa équipe yi ñoom Grand Magique ñoom ñoom dégool gars yi mafia bi yëpp daal xare fi gis nga xare fi dëkkam lañ ko fekk mi ngi dëkk ñoo yor fi Grand Magique mi nii waaw mi ngi loolu ordinateur ñooñu yëpp sama équipe lañ nekk maa ngi leen bëgg bu baax a di leen nga ne da ngaa yor sa kaasu fondé da nga ci tànk jox ko mu naan dama ko ko wax mu ne ma kaas bi kaas dugub yi du ñu benn te kaas boobu laay wëlbatiku sotti ko ko waaw mais moom kaasam sax foog ma def ci xorom mu gën a sàmm <laughs> kaasam waaw parce que gars yi ma leen suukara mais tafaatin ci kàttanu yàlla ci barke Cheikh Sall bi bëgg naa kaasam am xorom wala ma sol ko bu baax a baax incha allah maa ngi nuyu waa kër Cheikh la Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Faral sama waa maam Cheikh di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di leen seen doom Boy Niang mi ci combat bu am solo di nuyu fii nag ma nekk mu Joal parce que man doomu séeréer la waaw maa ngi nuyu ñëpp a séeréer um pire maa leen nuyu di leen ziar ba di leen ñaanal ñu ñaanal ma suñu boom defal ma tam ci combat bi ñu jëm di nuyu Pape Talis ak Diaw di leen bëggee bu baax a baax waaye borom baax nañ macha allah nga lii rek du ndaw boo ñaar tafaatin nee naa a xamul combat bi ngeen tëgg sax combat dàq ko ci saison parce que combat jànk la combat jànk la père wax la moom du ma may dara tamit ñaanu ma dara te moom may ma jël hmm. waaw combat bu neex la incha allah rabbi nee na ku waa hmm. moom daa dem doon naa droit ba yàlla dem muy dëpp man nag foofu laa teg sama am na combat royal hmm. kon moom moo ñu jiitu ci laamu lu mari mais ku am booñaa xam ne xale la ci làmb di ko dese bari na te fu bërëb xam na ko fu ma teg sama bët na du plateau yi laay toog di wax fii laa a dem fii laa bëgg a dem damay ci liggéey bi rek parce ku bëgg dara il faut nga def dara maa ngi nuyu waa Ili Saalum bi lépp waa Mar Faba ko waa Mar Roj maa ngi ñëpp soo mbokk séeréer di leen bëggee di leen wax ñu ñaanal ma suñu borom defal ma ndam bu baax a baax mais képp ku ma àndal def dafa lancement ñëw xamal ni boo ñaa nuyu la boo ñaa bëggee suñu mag ëmb ak Pikine mbëri fa am combat yëpp suñu boom defal leen ndam baax a baax ñu fa amul combat suñu boom defal leen combat bu baax a baax maa ngi nag combat ma àndal macha allah dañ bëri ñoom ñëpp topp ma parce que Pape Thiass day wax ni rek dañ ñëw ak cinq six personnes mais xam nga am na fooy toll ci laam boo jugee rek ñëpp di jóg te doo mën a wax kenn toogal moo tax ñu ñëpp ànd nañ ñëw quoi maa leen sant di leen gërëm di nuyu ñëpp di wax ni li ñu fi def rek loo xamante ni dafa dëng rek parce que Tapha Tine ay frère lañu yaa dégg gars yi bëgg a neexal làmb ji mais waa kër gis nga xëpp nañu suuf xeex nañu mais yëpp jaru ko maa bu jour ba amul kenn ku fay rax mooy ñëw mu dëgal boobu mu dëgal sama bopp rek nekk ci géew bi waaw moom bu xamee loolu rek lépp dafay jeex man su ma xamee loolu rek lépp dafay jeex jaru ñuy buuxante jaru ñuy xëbante suuf yëpp jaru ko maa tafaatin man maa jël avance tafaatin te xam naa ne damay bëri ak moom xam naa ne man moom ak arbitre ñooy ne ci diggante bi ñu suuf la man ak moom ñu bëri xeex incha allah soobee yàlla ngeen bëri xeex wax nga ko moom mbër la ne mbër la ma nga xamante ne bii ku bëri ak moom faaw nga xeex ba ma ko laajee ne ko lan ma booy ñaa faaw mu xeex waaw ma xeex bañu ma xeex bañu bëri man doomu mbër laa ci làmb laa judd man damaa judd fekk nemb xam nga mbër yu bëri dañuy wax sama papa mbër la mais man dama am ñaar dama ñaar avantage si yaay mbër la waaw parce que sama nijaay boo ñaa mbër la maa ngi nuyu Cheikh Niang mi ngi ànd ak man di doomam waaw mbër laa ci ñaari côté donc tafaati bu ma wooyee ci bëri jël moo yor ci xeet damay jël fu mu la lu ma am solo moom mooy damay pare bu jour waa ma ñëw pare waaw su boobaa lu ma woote damay ñëw wuy si ko incha allah xam na ne ambianceur nga lan ngay wax supporters yi ak fan si jour ba lan ngay andi ci chorégraphie. waa noonu la déggoo li ñu wax nee na ñor taab bi moo gën gësam. ñor taab bi. moo gën gësam. lu lu bees la wala. waaw lu bees tàkk la. ñor taab bi. waaw moo gën gësam. dañ koy tëgg dañ koy wax. xam loolu ñun moom lu ñu wax dañ koy fecc ñun moom lu ñu wax dañ koy feej bi passé ba mu la waxee curuxu curuxu dañoo ñëw feej ko moom lañ feej léegi mais ñor tab moo gën a gësam dañ koy feej bu soobee yàlla incha allah waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw xam ma mango moom bu ñoree tab bi da gën a neex lekk te boo gësamee tam nga boole ko ay kaani ta baaxul waaw jàmm ci ñëpp ñu ngi ziar ñëpp waaw jàmm ci ñëpp bu jeexee rek jeex na yàlla def ko tey nga waa di sant yàlla rek xam nga ñun moom ay ay ay jeunes sportifs lañ comme niñ koy waxee maa ngi lay nuyu nag di nuyu waa Joal yëpp. di nuyu waa kër Robert Ndiaye tey ñoo ma dalal ñoom góor gi Senghor xam nga ñoom Mbagnick Ablaye Ndiaye mu ngi ànd ak man kon Joal man dama fi am lu rey quoi. waaw di sant yàlla nag xam nga. di nuyu di nuyu aussi Pape Thiel non depuis le matin maa fi quoi mais sant yàlla teral nañ moo teeru nañ moo xam nga te li laa xam ci ñoom su ma dëkk la yàgg naa fi ñëw. kon maa ngi sant dem naa ba ci Père Robert nuyu ko. xam nga di ko ñaanal mu wér quoi. di ñaan nag xam nga lamb ji ubbi na yal nañ ko ubbi ci jàmm bismillahi rahmaani rahim tëjee ko alhamdulilahi la alamin champion yi amul combat am combat di ñaan yàlla sama combat yàlla may ma ndam parce que ci contrat rek tey contre booy Niang tey moo ma indi fii pour remplir sama kontra loolu la waay. waaw xam nga yàgg nañuy xam nga yàgg nañuy pare yaakaar naa daje nañu trois fois saa boo ñu gisee ak bu ñu gisoon du doon benn. kon sant yàlla ñu ngi ci waaj taay ko quoi. bay waajal bés bu toll nii bool bool yëpp nekk sa ginnaaw 100 pour 100 la def waaw yàgg nañu waaj xam nga ku waaj bu bëri roi des arènes amatul combat bu la jaaxal man Tapha Tine amul benn combat bu mu mën a déstabiliser suma life combat bu ñëw rek dama koy seere préparé ko ni ma ko war a paré ñi ma koy paré quoi. yee di nuyu waa Bawol ah di leen sant di leen gërëm ñoom ñëpp di leen wax ne Tapha Tine am combat nañu jàpp xam nga. may leen roi bi ni mu gën a gaawee loolu mooy objectif bi amul leneen way waaw calis moom xam nga dañ koy nuyu teg na ma yàlla may ma ndam mu ñëw tegaat ma kon du ko def lu di ko nuyu di ko sargal di xam ne jig na ma sant yàlla alhamdulilah. ñu gis yéen ñaar da ngeen dugg si rek léegi rek daje ci géew coow lu bari mu mel ni combat bi coow li commencé naa bari lan la. waaw mais c'est normal lamb la ñaari borom ginnaaw ñoo daje noonu rek la mënoon demee ko addu yaa waaw sant yàlla rek xam nga sant yàlla ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ko am na lu ma la waxoon ca ca ca poto fondé ba yaa ngi koy fàttaliku. waaw lan laa la tontu ma ne dugub dafa bari ay façon nga waaw dafa bëri façon dinaa la ci leeral lu bëri. ñëwal ma ci du façon. non am na am na am na. waaw non saagande tafatin loolu dafa leer voilà mu ngokk doon yóbbante Boy Niang lan lay di wax comme adversaire yëpp aw ma dara lu ma koy wax moo ñu boole après bi jiyee na quoi. mais euh, dañu gis sa mbokk yi datu combat ndax yow gëm nga loolu. non man bu ma am dama koy respecté ba lu ma yàlla may ma xam ne lool la man damay pare combat comme ni muy pare combat yëpp quoi lu ma yàlla may nag ma xam ne lii la ma yàlla set. alhamdulilah rabil alamin ma sant ko yàlla quoi. lan ngay wax ko. non xam naa ko xam na ma du problème loolu moom anyway ko loolu moom waaw détail la. lan nga comme ni mu ma xamee rek am combat ma koy seetaan ma am combat ma may seetaan. yaa ngi non mënul ñàkk bu am adversaire di nga ko étudier xam lan la ay point faible la ma war waaw bu bëri mbooloo laal. ko. waaw loolaay tax mu baax te neex nag. voilà mu ngoog. loolu mooy baax. baax bi loolu mooy baax baax bi loolu mooy baax baax bi dëkk gi mu dégg Pikine loolu mooy baax baax bi mën na koo fekk foofu incha allah mooy li ma lox tey amul benn lamb bu nekk production ci man ku bëre bu bëre roi des arènes non wax dëgg yàlla war a toog tiit ci lamb dara quoi ngoog jërëjëf waaw ah. waaw di leen jox rendez-vous bi rek di wax ne waaw Pape Thialis waaw nañu jox date bu fixe rek boo xam ne nii vingt cinq juillet la wax ñu ngi koy ñaan bu mu toxu bu mu rendu na doon bés boobu rek incha allahu rabi. mbër mu mel boo xoolee préparation yi day yàgg chaque jour ñu ngi entraîné xam nga te ku ne xam na ne préparé combat détails yi ci nekk quoi. loolu la mais lépp dañ koy sant yàlla xam ne dëkk bi moo tollu foofu monde bi moo tollu foofu di ñaan Covid bi yàlla na fi jógee. léegi waa di woo fan si yëpp di sant aussi ñi ma àndal tey ñi ma àndal tey maa ngi leen di sant nga xam ne ñaari oto lañ jógee Dakar xam nga su may frère lañu su may grand frère ñoom ñëpp maa ngi leen di sant ah. di woo ñëpp di sant waa Sowal aussi di woo kulu séeréer ñu ñëw jàppale ma ci lam ji yàlla mooy ma ndam incha allahu rabi. Ah. jaajëf Samb